ñu ngi quatorzième édition sectorielle Salle Adam 2023 2022 lañ koy def mais sectorielle 2023 la fii ci diwaanu Stade Léopold waa grand euh, Grand Moulin de Dakar ñu gën koo xam ci GMD moom diggante moom ak Adam seen euh, lu yàgg la euh, chaque sectorielle ak chaque Salle Adam dañuy teew bon bii pas comme que sectoral na nag indi nañ benn produit boo xam ne ñu ngi koy nag benn ripaas jarga jarga bégee bi lañ indi bu ñu waxee bégee bi mooy ovin bi mooy bu xar bi ak béy bi moom lañ indi saako 40 kilos euh, saako bi ñu ngi koy jaay 9000 francs tonne bi nekk 225000 francs loolu lañ fi indi waaw akom li ñu déjà ñun éleveurs yi ñoo ñu fi baax Adam aussi comme que moom mooy éleveurs yi la jël dajale euh, kon ñu nag Adam kenn mënul bàyyi dem bàyyi sa morom il fallait ñu ànd liggéey loolu moo tax suñu ànd bi yàgg te ànd bi vraiment gis nañ ci suñu bopp gis nañ ni ñoom saa yi ñu xewle ñi ñuy njëkk a contacter ci sponsors yi yu mag yi ñun ci la ñuy bokk euh, jox nañ ñu lépp ñu ndëngam jox nañu ñu lépp aussi suñu kilifa yi euh, responsable marketing bi ak directeur commercial bi ñoom it ku mel ni Latifa Diak jël na lépp aussi euh, bu foire bi jotee dootul lépp xelama ak xelaatam yëpp ci foire bi la koy def jël équipe bu compétence équipe boo xam ne macha allah ñu évacuer leen ñu affecté leen ci foire bi muy commercial yi ak ñi nga xam ne ñooy représenté tout lépp ñu indi ñu ci foire bi ñu liggéey ak gars yi. bon dernier mot am na yeneen produit yoo xam ne waroon nañ koo indi mais comme que lii sectoriel la rek parce que des na jarga bovin bi ñëwul volaille bi ñëwul farine bi ñëwul. te jar euh, ku xam ripaas Grand Moulin Grand Moulin de Dakar du ripaas jarga rek lay produire day produire farine jarga bi alors que ay qualité qualité yu bëri parce que am na jarga ovin bovin am na aliment am na soval am na vache laitière am na euh, farine bi encore à part léegi nag bi ovin bi rek lañu indi jarga bi léegi si des xëy na beneen fois incha allah nañ ko indi di remercier ñëpp euh, di sant ñëpp dernier moo xanaa jox leen rendez-vous. le 14 novembre benen sectoriel bi avec Grand Moulin de Dakar toujours dañuy accompagner wa Adam di and ak ñom di leen indi produit bu muccu ay té éleveur yëpp xam nañ né éleveur yëpp xam nañ né Grand Moulin de Dakar ñu yor produit bu xamné c'est le meilleur parce que lolu wédi gis bokku ci éleveur ñoko xamal seen bop né nañ Euh, éleveur bu koy say xar bu ñu koy consommé vétérinaire tànkam dana gis sa bergerie parce que xar yi bu ñu koy lekk du ñu am ay toxines ay feebar yu seer ay dëng tànk yëpp suñu borom dinañ ci musal kon dernier mot euh, li may def appel toujours xamal ne éleveurs yi ovin bi disponible na ku ko bëggee rek boo ñu contacter incha allah fu ne ci Sénégal dinañ la ko mën a jaay.